waaw bu fekkee nag may laaj eh, ci Afrique ci li nga xam ne moo xew démb ci Bamako ci Mali naa ci mën a wax sama xalaat noonu dëgg la duñ ay politiciens sax nag waaye nag eh, dafa am loo xam ne nattu la ci doomu aadama ndax fekkee eh, yor say bët di gis yor say nopp di dégg yor say xel di xalaat wax dëgg loolu dafa mënta ànd ak euh, nasax ge nasax gi ba lu ñëw rek nga sëgg mu jàll doo ci am benn xalaat loolu mënta nekk waaw dañ ci am xalaat bu baax a baax a baax xalaat bi weesuwut Ibrahima Boubacar kayta dafa yor alali jàmbur te alali ay malien yor yoo xam ne dañ koo yoral war leen koo topp tool am lu mu ci digganteeg ñoom ci seen constitution bi nga xam ne moom lañu tëral ñoom ñu moom alal ji itam war waxtu wu nekk ñu di ci teg seen bët di xam liy dox ak li nga xam ne moo doxul te loolu mooy li war a am fépp. loolu nag bu ñu ko defee ba gis na ñoom seen réew mi ngi suux seen alal mi ngi yàqu war nañoo mën a jóg def yeneen taxawaay yoo xam ne bokkut ak yooyu bokkut ak ñu defoon taxawaay yooyu rek moom la ñu def àndandoo ko nag ni ñu ko war a àndandoo def ko ci xam-xam itam ba tey lii mën a am ñu mën ko faa jëlee mën ko yóbbu feneen. seet nag léegi nu ñu joxale waat seen réew te loolu moo war a am fépp lépp loo xam fépp foo xam ne lu mel noonu am na fa noonu lañu war a def Sénégal gi Côte d'Ivoire feneen feneen Guinée hmm? bu fekk ndax ñi ñuy bëgg yàq lu bare bare bare bare waaw yàq démocratie bi troisième mandat yi ñu ngi ñuy bëgg a rey di bëgg a tas Afrique hmm? te loolu ay gor ñoo togoon wax ko dëgg la dëgg la du alxuraan alxuraan moom mu ne su cee soppi virgule waaye nag itam bu fekkente ne ci wàllu wàllu démocratie la boo xam ne te tam ay borom xam-xam wala ay gor ñoo toog waxtaanee ko ba signé ko loolu dañ ko war a respecté bu ko respecté wul nag toog ba mu neex rek ñu defee ñoom war dañ ko mën a dindi ci seen xalaati bopp ak seen bëgg-bëggi bopp ak lenn ci aw nit ñoo xamante ne dañ leen di maral seen tànk ànd ak ñoom loolu itam teguwul fenn teguwul ci yoon population yi dañ ko war a jóg taxaw ci bu wér ba loolu bañ a am. mu des beneen point boo xam ne danaa ci félicité Ahmed Khalifa Niass bu baax. wax na ko démb ci bi nga xam ci li nga moo xew mooy euh, apartheid ak euh, li arab yi wax tam zi tam yi suñu loolu nga xam ne moo am nga xam ne dañuy sepp ñenn ñi ci ñenn ñi ci loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk loolu du amu wërta am jël benn classe boo xam ne dañoo jàng wenn langue euh, tax ñu defee ne ñooñu ñoo war a doon lépp réew mi ñoo moom réew mi ñoo moom alal réew mi ñoo baatum réew mi loolu itam dañ ko war teg fi suuf réew mi a ko bokk ku am xam-xam ci nga bokk te xam-xam du aw làmmiñ kese wala làmmiñu français kese loolu mu wax dama koy confirmer xam-xam du caa génn li ñuy wax xam-xam mu ñuy wax français ci àddina ñoo gën a tuuti ci ñuy wax arab foofu arab li tàmbalee Nouakchott ba Koweït moom la ñuy wax li tàmbalee Yaman ba bëggay dem Syrie ba ba xaw a dugg Turquie moom la ñuy wax kon loolu mbooloo bu bari ñoo koy wax kon mbooloo mu bari xam-xam bu bari la la la la la ëmb ñu defee nag ñooñu ñoo war a moom réew mi pour toujours loolu ñëpp war nañ ca jóg taxaw kilifa yi diini yeeg jàngkati arab yeeg taarix torox yi ñëpp war nañ ca jóg taxaw ci loolu te war naa tàmbale tey tey tey jëm ci kanam maa ngi jéggalu bu baax a baax ci ñi ma ko waxee waaye lii moo war a am bu amee mooy li war a am bu amul it mooy li war a am maa ngi jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.